Yeah. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui nous suivez partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer, juste c'est vrai. nee naa leen saa yu abonné ba noppi bu leen fàttee cloche de notification bi ngir jot vidéo en exclusivité Nous tey en ce mardi 3 septembre 2024 indi l'en, benen, numéro actif du jour xool li gën a fës ci xibaar ci daal di bës bi ñu daal koy saytu taataan ko segg ko faram-fàcce ko indi ko wisaar len, ko fi, sur la chaîne des grands événements VIP VIP People TV fi koy tambalé en ce 3 septembre 2024 dañuy dem feulé Chine ginnaw bi nga xamanteni coopération bi dox ci diggante Sénégal ak Chine ki di son excellence le président Bassirou Diomaye Faye bi mu fi dimanche egg fofu na Chine muy image nga xamanteni ñoy fessel du président Bassirou Diomaye Faye fofu ci Beijing muy li nga xamanteni moy mooy talu Chine ginnaw lolu mon président de la république Bassirou Diomaye Faye bu mu egsee altine fofu ci Beijing fofu ci Chine pour visite d'état bi nga xamanteni d'avoir participé a participer ci e édition bi ñu dippee forum de la coopération Chine Afrique ñu tuddee ko FOCAC ñu prévoir ko le 4 ba juróom benn fan ci septembre ginnaaw loolu daal lépp loo xamante ni suñu source mi ngi ñu koy xamal jëmale ko daal ci li nga xamante ni moom mii di président Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bu mu egsee foofu ca journée ba di altiné ñaari fan ci wéru septembre fofu ci Beijing ca Chine ngir visite bi nga xamante visite d'état la pour mën a participer ci e édition li di forum bi dox ci diggante coopération ci diggante Chine ak yenn réew ci Afrique dina am dal du 4 au 6 septembre 2024 notamment lepp lo xamanteni dal président présidence sénégalaise bi mi ngi koy xamal ci ben message bo xamanteni ni publier na ci réseaux sociaux yi particulièrement ci Twitter suñu sukkandikoo dal ci lepp lo xamanteni dal muy accueil bo xamanteni bu am solo lañ ko defal fofu ci Beijing ginnaw nak ay honneur jaarale ko ci ay autorités chinois yoo xamante ni ñi leen accompagner di ay représentants diplomatiques sénégalais yi nga xamanteni fofu lañu la basé wu ci Chine pour fàttali leen kii di président de la République du Sénégal son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diomaye Diakhar Faye ginnaw bu mu Dakar dimanche jëm faux ca Chine ci invitation président chinois bi di Xi Jinping di co-présider li nga xamante moy mooy forum ko dal ci walu coopération Chine Afrique muy image yu ngeen di gis di arrivé président Bassirou Diomaye Faye ànd ak awo buuru këram fofu autorité chinoise yi di koy dalal ginnaw lol nak amna benen vidéo bu bëgg ñi sétane mom moom bi yoon voyage am demul mom kessé dafa ànd ak ay homme d'affaires ginnaw lol nak ki di président directeur bu groupe 2STV euh, di El Hadj momit mi ngi fofu ci Chine ngir présenter li nga xamanteni ni jëm ci walu technologie euh, audiovisuelle ak euh, télévision bi di 2STV nañ sétane vidéo bi del si Thank you. 那个，比如说，他们就现在就是到了需要开始第二个电台。啊，parce que tous les tous les artistes mènent la même chose。变成了互联网，我不行，所以他就是有这么一个初初中。嗯。nous sommes gratuits pour devenir une mission très importante。呃，所以他们在在成为很重要电台这方面，他们是自己一个人在考证。 Nous avons révolutionné le mode de tournage, de la manière dont on tourne les événements de lutte, les événements de football, les événements traditionnels. Nous avons modernisé et apporté une autre couleur de, la culture. 你自己国家本来这些经济事情跟他们一样。I don't think so. No, no, no, no. I don't think so. No, no, no, no. It's never, ever, ever, ever, ever, ever gonna happen. I don't think so. No, no, no, no. I don't think so. No, no, no, no. It's never, ever, ever, ever, ever, ever gonna happen. I don't think so. No, no, no, no. Never. vidéo bobunga nga arrivée arrivé du président directeur général du groupe des civils de la Hadj Momit Mingifo it mi ngi Chine qui li nga xamante ni édition du FOCAC du forum pour la coopération Chine Afrique président Bassirou Diomaye Faye aussi bu muy dem yóbbaale na ñenn ñi nga xamante ci wàllu patronat bi lañ bokk ku ci mel Serigne Mboup ak nga ni Pierre Goudiaby Atepa ak ñaar ñi nga xamante ni meilleur élève Sénégal ci concours général 2024 mon président de la République dina fekkee li nga xamante Dal, daal sommet boobu 9 neuvième édition ginnaw bi nga xamanteni mom président de la république populaire de Chine mon koy présider fofu ci Chine.